def ko waaye kan moo ko def bidaa mooy ki nga xam ne dafa nekk noonu lislaam buggut lislaam dem parce que gis na ne lislaam méthode bi ci Cheikh Ibrahim Niass jël pour tasaaree ko lislaam gaaw na gaawaay boo xam ne occidentaux yi jaaxal na leen naka la ñuy def pour freiner ko mooy dañuy jël pilier boobu ñu ne pilier boobu wérul ci lislaam pour ñu mën a fraine dimension boobu nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim Niass di utiliser pour jàllale message u lislaam jàllale message yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce lu mat 100 et quelques millions de personnes ku leen mën convaincre ci ben religion ci même pas 40 ans wala lu ko moins kooku suñ la freiné wul addina bi danañ la fekk ci danañ la uyu kon ñom xaw nañu tit ci méthode bi Cheikh ibrahim di utiliser xam nañ ne foru Baay moy gamu gàmmu bam bàyyi gàmmu la jël utiliser ko def ko war wayam pour dugalee liggéeyalee ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour amé ko résultat ci liggéeyam ci yonent bi ndax ñiko jitu won ñepp xam nañ leen liñ liggéey ba waaye bàyyee ñëw bàyyee moo mujjee ñëw waaye moo ëppale lu tax mu mujjee ñëw ëppale nag mooy méthode bi mu jël di ko liggéeyee méthode boobu gars yi fekk na gars yi wuñ ko woon utiliser mooy gàmmu kon gàmmu résultat bi mu mën a am mas naa koo def ci benn waxtaan ma ne doo gis mukk kuy oor ba nit gis la sa koor yi bari ba tax mu dugg ci lislaam ndax da ngay or or yu bëri doo gis mukk kuy julli-julli yu bëri ba nit ki xemem sa julli julli yu bëri ba tax mu dugg ci lislaam wala su amee ay benn benn lay nekk waaye taxaw ci guddi waxtaan jikko yonent bi balaay bët a set lu mat 40 personnes taxaw tàllal seen loxo ci bët set wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ci gàmmu rek lañ koy gisee te Baay Ñas moo ko moo ko moo moo ko wane kon résultat wu gàmmu moo nekk loolu gàmmu bii nga xam ne moom la ñuy ñëw di bàyyi suñ kër yi jugee fu sori dajale suñu ay dërëm dërëm ak suñu ñaa dërëm ñaar dërëm indi ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jar na ko ndax bu dul dara sax ku fété ci mbir sax dang ko fexé mu da nga da nga gor góorgóorlu pour mu am mu am ndam rawati na bi nga xamé né Cheikh Ibrahim Niass ci li la daan dundalé alalam bu bés gamu jotan da daan ubbi ay buntam da daan nekk ko xamné da daan rétan daf daan uh, ganale ganni daan terelaate daan jël alalam diko def ci gan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak ku ci dugal sa deureum ma ngi ñaan yalla yalla nako yalla fulandil nga jot ca càkkutéef ba nga xam ne liggéeyal yonent bi liggéeyal am na njariñ képp ku ci def sa dërëm balaay déwén yàlla nga nekk millionnaire yàlla na la yàlla def milliardaire yàlla na yàlla dimbale leen ci zahir ak ci baatin مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على